avocat kii ab politicien booy moom nee nañ daa jiite Aïcha. la jiite. Euh, moom tamit benn waay ma ko joxoon ne ma ab la jiite moom ça moom tamit mu ngi sonné. gaa yi léeg-léeg ak ñu am allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam kilifa gi ziar naa la. kooku la Cheikh. Cheikh Cheikh de. allo. allo waaw. kooku la man dañ maa boole yow de. ah dañ maa boole yow. waaw damaa arrêté wut numéro bi quoi man maa man maa man maa nekk Thiaré te bëggoon jël élection locale yi rek. ah wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. tur tur nan la. tur de Mourtala lañ ci wax. voilà yow la parce que dama arrêté wutoon numéro bi quoi dama ko bësoon rek moo tax maa ngi jégalu de. waaw amul problème amul problème. waaw pour ma gagné élection yi foofu. waaw ah, sëñ bi de bu fekkee moom ay mbir élection nga wax moom. waaw. man moom ki may àndal ànd naa nga pare te dara mënul tax ma war ko barke sëriñ Alaaji Maalik eh, te mënul sa dara mënul da nga may déglu rek ma wax la. waaw. xam nga sama sama téléphone sama numéro bii nii avant ma doon ay koo xam damay boole ay nit ak mhm. woo. dëgg la. kon tey nag bu ma kooku defee ma am mbooloo bañ may woo mënu ma koo war di dem ci keneen. te am naa moo pare dara ci àdduna tax ma war ko. waa léegi kon gara am problème yow léegi doo gisee comme a booleel. waaw nga boole maam ndax man am na sa oto bi ma rance bi ma rance bi nga xamante ni a ah. a doo gisee nga boole ma kon kon ah, yaa koy jox ko pour man la yow. waaw maa ko jox ku ma ko jox pour mu ànd ak ma rek du ko defee ñu mën a ko am ku mel am mbooloo comme yow rek nga boole ma ak moom ma jox ko rente bi ak 3 euh, millions yi mu mën a ànd ak ma jàppale ma. xam nga bu fekkee dëgg naa dama lay wax dëgg man du ma la fen sax léegi dëgg léegi carrément. Mm-hmm. yaa ngi dégg ndax yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndax ndax démb dañu ñëw fi reer këram ñu dem mais euh, euh, wax ñu ne ñu ay misu lay defar ñu yegg ma xaw ma pour bi daa paan xaw ma ay ginaar lañ defaral. Mm-hmm. yaa ngi dégg. maa ngi dangay maa ngi dangay nit ñu bari dem ba yegg. ñi maa noonu dañoo mujj sax xam naa dinañ ma réew ni mënuñ maa réew c'est parce que man xam nga ku ma xam xam ne man borom tiraag rek laa maa defal mm-hmm. comme nga demee noonu ba demee noonu te ay fen ni nga am su diggante yooyu noonu mm-hmm. damay xaar mu woo ko su ma ko woowee ne ko léegi mm-hmm. comme nga waxoon damay jox dara ma ne ko léegi comme que dama am fu ñu toll dañu maa tudd ay ay bis te fu ñu bis il faut il faut ma def fi dara te xam nga ne moom ay ay cinq cent mille lay jox wala trois cent mille motu ay trois millions te xam nga cinq cent mille du ma yàqal sama trois millions dëgg fa yàlla léegi xam nga lañ def waaw léegi da ngay enregistré sama numéro bii nii yaa ngi bind di bind di def ci borom mbooloo mi rek bu ko defee après. Mhm. bu ko defee man naa naa su bala maa tudd man am naa jënd crédit bi doy mu woo la ñu waxtaan bu ko defee bu jaree man ma jël aw bagage sax ñëw fekk la foofu aw problème. kon da ngay bàyyi sa waay. non sa waay non sa non sa waay kay tàggu sa non. waaw bu ah, ma ko bàyyi moom définitivement mais mën naa di waxtaan ak moom nii mais ay en cadre politique moom moom moom duñ duñ ci dox ndax ma damay tardé quoi tamit suñu wax dëgg yàlla moom jamono ji moom damay tardé ba ma ci dara. waaw kon baax na amul problème léegi kon danañ déggoo. ok waaw enregistré enregistré sama ayo ki war na di. waaw mi ngi noonu ba waxul turam dégg nga ko nee na ki bi àndal daa mën a fen waaw réew mi waa nii ngi noonu ah. waaw ndeysaan comme comme nii la rek. Hmm. Eh, moom bi ma bi may ñëw lañ ma joxoon numéro am daanaka yàgg na sax fan yëpp ma parce que fan yi gars yi dañ ma jox ay numéro pour bëgg ma woote waaye damaa arrêté ba bis bi jàll ndax. mënumaa yorandoo ñaari xel quoi. xel mhm. dama sama lépp dama koo teg ci bis moo tax. mu ñëwee ma xool gis si bokk ci numéro yi ma envoyé. Mhm. moo tax ma woo ko fii mais maa ngi koy tuub moom it xam naa ne comme émission bi direct lay doon. du ma génne mhm. maa leen kontaan bu baax nag di ñaan moom it euh, si bu mag bii mu dem ba nekk télé bu mag ndax vraiment yéen a ngi jàppale artistes yi ndax lii rek. jàppale mën ko weesu ndax euh, ñi nit gis nañ ak yokkute am na ndax biñ fiy ñëw ni meloon ak bi ñëwaatee ni melaat xam nañ ak yokkute am na. kon tamit ñi ngi ñaan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 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax